wajalilaayi maskani tubaaba misrasmi abijaayi xayri sociale bi nga xam ne moo nekk ci Touba ca kanam ñoom ñu ngi waajal tabaski bi bu baax a baax ci ni nga xam ne at mu jot noonu lañ ko daan defee moo di collecté ay yére yu takkoo takku yoo xam ne dañ koy jébbal ñi nga xam ne seeni loxo jotul seen ginnaaw te am yéene jënd ay yére yu yees ngir sol ko ci tabaski bi liggéey bi nag nekk liggéey bu am solo boo xamante ni at mu jot commission sociale bi di ci bay waaram ànd kook mbooleem kilifa ak membre yi nga xam ne dañoo nekk ci daayira Touba ca kanam ren jii nag ñu dajale ay junni junni yére yoo xamante ni képp koo xam ne sa loxo jotul seen ginnaaw te sa wërsëg nekk ci ñu mën la koy jox ngir jàppale la ci tabaski bi nga mën a sol yére yu yees. fii mooy Baxdaat Touba Baxdaat dëkk sëñ Abdou Khadir Mbacke. fii mooy Daaru Maram Boussa dëkk Serigne Omar Boussa. fi mooy Touba xaar yàlla. ci Aliya. yéen ñi nga xam ne yéen a ngi fi ñëw nag dinu indil am na leen yàlla ak defal la ngeen bëgg yéen ko xam yàlla leen ko yàlla ak sëñ defal. noo ngi fi ne maa ngi ni man dama doon xoolee gerte fa ma doon xoolee gerte ka fa laa tëbi gis nga maa sama tilim ak sama ñaq xottu julli kay moom wàcc na ma moom. ñun xale yi ak mag ñi kay moom xotti moom wàcc na moom ñu kontaan nañ trop wax dëgg yàlla jàppale ngeen góor ñi jàppale ngeen jigéen ñi jàppale ngeen borom njaboot gi ndax a fu ne nii tey kenn ku ne yaa ngi taxaw bëgg a xotti sa njaboot bëgg a xotti bëgg a xotti euh, sa njaboot yëpp te tey kenn ku ne sa njaboot wodd na wodd nga góor ñi wodd jigéen wodd ñëpp wodd nan kon ñun am nan kontaan amul seen fay xanaa nag li lay ñaan rek Touba ca kanam ci kontaan ci bég ak yéen ñi ko yor seen wata bi fekk ci kër yu tëdd ngeen dina ko yóg nu bég ci nag yàlla na ngeen yokk gën a bég te gën a jëm ci kanam yàlla Touba gën a jëm ci kanam bëgg lii gën a yokku yàlla na leen yàlla defal jàmm defal leen Touba ci kanam lu ngeen bëgg yàlla na la ko yàlla ak suñ Touba may Touba ci kanam noo ngi ànd ak ñoom ah lu ñu bëgg yàlla na leen ci sëñ Touba fekk si yàlla na leen sëñ Touba fekk si ni ngeen ko bëggee yàlla na leen sëñ Touba fekk si suñ xol sedd na guy guy guy guy guy guy nu neex a yor ñu woon luñ sol ah ngeen defal nu lii noo ngi suñ xol sedd na guy guy guy guy barke borom Touba waaw man de sama xol sedd na guy sama waa kër seen xol sedd na guy lii moom mi mbett moom yàlla na leen ko sëñ Touba mbett lu kawe seen njort ci barke borom Touba. taxawaay waa Touba ca kanam de yàlla na leen yàlla jàppale ñu jom ca kanam ndax wax de yàlla ay jàmbaar la. dëkk bépp kontaan nañ dëkk bépp kontaan nañ fi mu toll nii sëñ bi ñu leen sant di leen gërëm fi mu toll nii daal yéen xam ni geen bëgg yàlla nañ ko yàlla defal ñun daal fi mu toll amuñu seen pay yàlla rek moo am pay. yàlla mi am seen pay nag yàlla ne leen fay. buñ toppee koñ yi di woote naan Touba ca kanam ñii ñii ñu baax ci dëkk bi la ñee war a nekk ci dëkk bi yàlla na leen yàlla taxaw aar leen musal leen ci lore. yow yéen waa Touba ca kanam ñi leen di ñaanal ca kanam kaname kanam li ngeen li ngeen di yóotu yoonu Serigne tubaa wi yal leen ko jot te muy seen njiglaay yal na ngeen yokku ba yëg ko ne jumaay ji yokkoo ñun ñu waa Daaru Manaan bu sëdee ñun kontaan nan trop ci taxawaay bii ñu taxaw tey. ci daaru Manaan Bousso sëriñ Omar Bousso nag mi ngi ci biir kër gi am na kontaan trop. yàlla yàlla dolli xéewal ñun ñëpp bul julli gi ñu ngeen def ak rafet daa rafet. kontaan ngeen ci kontaan nañ trop te kontaan nañ trop. ñaanal suñu borom jàpp leen Touba ca kanam lépp gën a jëm ca kanam a yàlla la fa cet mosoo leen seytaane ba li ngeen bëgg ci la gëm suñu lépp ngeen am ko yal na suñu borom jàppale. Eh, tax a jóg suñu yëngu dugg ci caaxaan lu nekk rek ngeen xam ne jàpp ngeen ci lu wér tubaa ci kanam moom ku ca ne mu ngi ci kanam ku néew ci kanam Touba ngi ci kanam Touba mu ngi ci kanam yàllaa ko def hmm. ca ko def hmm. ku ci kanam mu ne ci kanam ku ci kanam mu ne ci kanam waaw benn benn ki néew ci kanam sëñ Touba ci kanam Touba déedéet ne ci kanam hmm. ndax man ni ba ñuy woote ci la ci fondation ba ci laa bokk cotisation bu ci si ñëw bu ñëw na compte sil na ma gade ma woo mbooloo mi yëpp ñu joxewaat seen participation màggalu gerte gi bu ñëwee dañuy tànt foofu ci buntu jumaa ji mm-hmm. boobu màggal gi jàll mm-hmm. Touba ca kanam waaw mm-hmm. loolu man maa nga ci biir maa ngi ñaan nag taalib bi yëpp ku dégg sama kàddu nga xam ne Touba ca kanam ku bëgg a jëm ci kanam demal ci Touba ca kanam def ci sa ñaq def sam xel def sa kàttan am na ñu ko yoo xam ne dañ ko dañ ñu nekk ci àll xam ne ñooy ba ba baax ak Ndaraxaam ak Aliya ak Ndodi kon nag yéen waa Touba ca kanam jàpp leen liggéey si Touba am tànk am tànk gaaw tànk gaaw rek la am góorgóorlu leen te xam nga ngërëma si Touba doy def lu baax doy te ki nga xam ne Cheikh Mountakha mu ngi leen gis ca kaw ak kanam te ñu ne dañu ne li ñu gën a naq li ñu bëgg équipement bi bu na ngeen bëgg na ngeen na ngeen wax sëriñ ne ko ñun am nañ jafe-jafe ndox ndax boobaa léegi suñu yaay ak yi ak maam yi tënkuwuñ tënkuwuñ ah, rëduñu defuñu leneen lu bokk ak loolu li ngeen def ni baax na na nga ñu na nga na nga ñu jël jot loolu bu soobee yàlla li nga bëgg nga def ci Tuubaa da nga ko am incha allah rabbi. daal moo des ah yaakaar nañ ko ci yàlla yaakaar ko ci yéen nga xam ne yéen a gën a indi ko daayil ndax ku la wan ku la may tànk kanam kat dana wan na yooyu ginnaaw yéen a nu may tànk kanam xañ na da ngeen nu yor commission sociale bu Touba ca kanam ni nga xam ne noonu la koy defee ci yeneen événement yi muy korité ak màggal noonee la koy defee ci tabaski bi moo di lépp loo xamante ni bëgg-bëgg la mu jëm ci ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ciy taxawu saa su ne wajalilaayi maskani Touba مثل اسمها بجاه خير من نبات